damee ñëw ba stade indi sama mbër mu daj li muy daj ci làmbam indi mbooloo bi yëpp may tooñ yàlla na man toog ma toog fii di wax yow rek nañ la jiili yow ay ponkal ñoom Franc ñoom Gora Sock ñoom Papa Sow ñu ne ay béggu naaw naaw la ñor nga dégg man lañ doon xeexal ma toog nii dara jotuma nii lu waral loolu ah ñoom ñoo gaañante seen biir wala leen wala non non bul waxati loolu Lamine gaañante heureusement Lamine eh xaara cumikaay Siteu fan la nekk cumikaay Siteu dèjà Siteu fi ma toog tey mënu fa ñëw xanaa mu jaar taxaw si digg géew bi ma koy séen am na wala amul non dañuy waxtaan lamb jëpp ay barrière non gaañoo nekk seen biir gi kay laa mënul non léegi xaar dama lay laaj hmm. Siteu man fi ma toog waruma foon toog fii laa waroon toog mais pourtant dañ ne ma fële mais tey damaa xam ne allah kulli alin damay am ndam beneen bi mooy dañu waroon jox suñu ndam xamal tax Siteu xeexul xeexaanul heureusement ba fi ñu doon jàppantee mbër ku sol blouson taxaw fa ñi fa taxaw ñëpp ay galañ lañ yor ñun tëggkat ñun xoolal ñi ma àndal kan moo 10 kilos bay gaañ Papa Sow. waaw ma Siteu fii moo tooñ. indi leen ma Siteu moo jërëjëf Djily Seck. voilà jërëjëf kontaan naa ci na kenn eh, moom kese moom kese moom kese Djily may ko ndax mu am retour kay. non mais Lamine waaw non dama lay fekk fële waaw kaa toog toogal nii ndax nga am retour na Siteu ñëw nii ñëwal nii ndax nga am takkal casque yi yaa ngi soog a nangoo jege maa ngi lay ziar bu baax a baax Siteu di la masaw di masaw tamit sa adversaire gis nga li nga xamante ne moom moo fi xew tey dañ lay déglu nga wax san moy sa xalaat ak ban gis-gis nga am ci li xew fii tey waaw avant tout maa ngi sant ñëpp di gërëm yàlla di sant yàlla sant ki nga xamante ne mooy Serigne Sidi Mbacke Alxuraan mm-hmm. waaw mm-hmm. mais li may wax rek mooy mm-hmm. man kontaanu ma ci Papa Sow parce que li tax kontaanu ma mooy làmb ji warul woon demee nii moom xëy na xool ni ma mel wala mu xool xam ne tey du am dara moo tax mu yàq làmb loolu laay wax Papa Sow moo yàq làmb ji moo ko yàq kay parce que imagine ni koo xamante ne ak ni nga mel ak yow niñ la nawee ci dëkk bi yow sa plein di jotee yaa ngi dégg ba tourné di waaj ak sa cumukaay nga jëlee war ko sa cumukaay yóbbaar ko fu mu doon jotee kon kay yow yaa yow yaa yow yow yow loolu yow yaa yow yaa gaañ sa bopp yaa gaañ sa bopp Lamine dafa am loo xamante ne àdduna si mën nañ ko doon si mais gisuñu ko gis nga guddi yi man waxuma la man de mais képp ku may topp wala képp ku may àndal lu dul dal ak yar ak teggin santuma la ko man mais dafa am loo xamante ne yow jaay muus muus la mais Papa Sow lu mu muus muus muus muus muus ñoo ko gën a muus fop parce que moom lii su ñun la ko doon séntu su ñun la doon séntu lii sama combat mën a guy gi Lamine la ma tax loolu ko dagal leen ko ngeen xool xeer bi ma dal bi may jëlee yow nga xool leen ko te loolu ba léegi kenn waxu ko te bi ma gaañoo waa CNG gis nañ ko mais Papa Sow pare woon na pour bëre et puis maanaam li mu génnee ci deret li mu génnee ci deret dafa bari trop nga song si di nga song si ay ardo Lamine man la laa bëgg danga may bàyyi ma sant samay xarit. sant samay supporters sant ñëpp. mais man Papa saw man pare naa ci moom leneen laay xool sama. léegi CNG CNG. CNG bu ñu leen obligé pour ngeen bëriwaat nag. kan man. waaw yow loolu man naxa naxa laa. CNG ñëwuma moom. CNG bu ma joxoon sama victoire luñ ma bëreel waatoo ma bëreel waaw mais sant yàlla maa ngi gërëm ñëpp. est-ce que est-ce que est-ce que bëggee woon nga ko nii. kan man mosu bàyyi lu tax ma koy bëggee nii man sant yàlla sax bu ñu ma joxul ndam sant yàlla bu ñu ma joxul ndam na dama la bugg a xamal ne la. Hmm. yow ñun si làmb lañ bokk ñun lu ñuy def si làmb bu dee nit a koy def wax ñu. bu dee nit ñun lu ñuy def si làmb bu dee nit a koy def si làmb nga wax ñu ko kon la moo tax ñun mënuñu am daraja bu ñu am la moo tax ñu jox këdd bu ñu jox ñun bu ñu mosaan a ñëw làmb policier yëpp a ñuy wër parce que dañuy clamé ak ñun mais tey bi ma ñëwee ay fruits laa ay keesi kees. policier bu ma gis naxanteeg moom ne ko Fall damaa bëgg a ñaanal ma ko bu dara mais dama ko def ngir ñoom ñu xam ñu ñooy ñan ñun ay frère lañ ñun dañoo am ay ñoo xam ne ñu ñoo fondoo depuis ñuy nekk ay xale ay homme de tenue lañ yaa ngi dégg hmm. mais bu ñu gisee ku dëkk jaama gën beneen mbubu lañ lay solal ñun bon ñu hmm. ñun ay yaay yu baax lañu am ay papa yu baax la ñu am ñun ay gor lañ ñun bu dee alali jàmbur mooy maye du am bu dee bon mooy maye du ñu am bu dee xalaat lu bon xalaatal ko nit waxoo ko bu dee loolu mooy tax nit am daraja ñun duñ ko am kon man li may wax maa ngi sant ñëpp di sant sama sëriñ sëriñ sëriñ Mbacké alxuraan di sant ñi ma jàppale ñëpp di sant sama xarit Youssou Ndoye Youssou Ndoye daf ma jàppale dégg nga ma Amadou daf ma jàppale Khalil daf ma jàppale man ñi ma jàppale laay wax yaa ngi dégg essayant dégg góor a bàyyi ma sëy daf ma jàppale dégg nga ma Ousseynou Ousseynou Ka daf ma jàppale dégg nga ma ñi ma jàppale bari na lool yaa ngi dégg Balla Seck Waly Seck Faramare kooku moom sama xaritu boobu. Hmm. mais Siteu lan moo taxoon nga nëbbatu. kan man waaw man may Baye Fall di liggéey war a dëddu àdduna war a jëli li nekk sama kanam man samay xarit dañ ma yaa bu ma leen de dañ ma yónni yaaxamti ma man samay xarit dañ maa yónni yaaxamti ma. 3 mois Siteu kenn gisu la. da nga naan ñetti at bul wax 3 mois da nga ñetti at man maa ngi waajal combat Papa Sow loolu moo tax ma meram hmm. parce que combat bi nu mu mënoon a demee dañoo waroon a bëri ñetti at ñu waajal lamb ji loolu tax nga mere ko. waaw dama ko parce que ñetti at yow saa yu combat bi ñëwee xaw ma moom moo am gàllaañ boobu làmb ji yàqu. ba bi trois fois ñu ñëw ba si stade bi mu fexe ba bëreewul. Fall man li ma lay wax siisu na fi siisu na ba sonn na pour bëre. siisu yow loolu di xel. waaw bàyyi di gis loolu. ay bàyyi ma waayi. ay war sant say mbokk. ma man maa ngi sant samay xarit. wax yombul. te mënul wax man le maa ngi sant waa Amérique di sant sama soxna di sant maman Issa di sant Gambia yi. waaw tey nag 100 pour cent séeréer nga def sama sama sama sama sama combat bi Gambie laa ko préparé. waaw Abu Ñaase moo ma jël yóbbu ma Gambie moom ak Maama Lamine. no temps kay Gambien nga mais mais mais tous mi Siteu tous mi. maa ñibbi jonwaar. tey kay lépp jonwaar. lamb ji nag mu tuddoon waalo waalo yi. waaw parce que Serigne Bamba. ñàkk maa ngi leen di sant di leen gërëm. kon waalo waalo est-ce que ça nuñ ba man jaama gën. jaama gën mooy sama kër. man waxuma la jaama gën laa dëkk de jaama gën mooy sama kër. jaama gën ku mu am bëgg naa ndeysaan yaa ma mu am bëgg naa fekk rek laay jombule mu dëgg jaama gën mais ku ñu mën am ak noo mel bëgg naa la waaw maa ngi sant suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke o foog la séeréer waaw o foog la koy mi simnaa den naa ñu bari yaakaar dégguma séeréer waaw waaw mi simnaa nu ana leyaw séeréer simnaa anduna le fop mm-hmm. ka atuna jongwaar bo faya ko mm-hmm. mi simnaa fop leyanun nga contannam geama kene ke jimo leng ha refeerna sereer gidma tokores yaya mi gidmam salanam toko abdou mi gimnan mi gidmam jongwara mi gidma nun mi jongwara somam bapam jeem kan sedaran anna i contannam koy machallah yow man sant naa ñëpp waaw namoon naa nga jàppante ak papa Sow fii tey de waaye kon dinaa ko dóor càmmoñ ba mu xam ne lépp dëgg la ndinga kon tey da ngaa koŋ. yow kooku baal ma ko maa ngi dem. ja jaajëf.